qui règle les naissances jusqu'au décès et qui engage parfois un pays pour des générations. C'est une lourde responsabilité que nous accueillons avec humilité. Nous remercions aussi tous les collègues de l'Assemblée, le président, pour l'accueil qui nous a été réservé. Et nous espérons, dans un esprit de collaboration, dans un esprit d'apprentissage pour nous aussi, de cet hémicycle euh, qui est euh, pétri d'histoire, réitérons l'engagement qui est d'être un député du peuple. Mhm. On n'est pas député d'un parti ou d'un groupe, ni d'une zone géographique ou d'une communauté particulière. Mhm. Donc, en ce sens, nous continuons à, nous continuerons bien entendu à défendre les intérêts du peuple sénégalais, euh, à privilégier les intérêts collectifs sur les intérêts particuliers et partisans. Mhm. Donc, ce que nous espérons de cette assemblée, c'est peut-être un changement à venir dans les relations entre groupes déjà c'est pas forcément des lieux d'adversité euh, physique mais plutôt de débat dans le seul but d'améliorer encore une fois le sort des populations et le développement de notre pays. Voilà. Votre installation correspond également, coïncide euh, autant pour à, cette situation euh, regrettable donc, euh, qui consiste donc à l'annulation de, de ce débat d'orientation euh, budgétaire. Alors, quelque chose que vous regrettez certainement. Oui, que nous regrettons et surtout dont on ne comprend pas la logique. On n'a jamais vu quand même une institution prendre euh, avec autant de légèreté la liberté de violer une loi organique, à savoir la loi de, euh, organique sur les lois de finances, qui prévoit à cette date précise d'aujourd'hui, comme la date limite pour organiser le débat d'orientation budgétaire. Ça fait partie du processus normal d'adoption de la loi de finances à venir. Donc, qu'on s'appuie sur une déclaration du Premier ministre en dehors de l'hémicycle, dans un cadre qu'on peut qualifier de privé, qui répondait à une interpellation d'un député pour en faire un casus belli qui engage l'Assemblée nationale, notamment la nation, sur ce qui est plus important, c'est-à-dire les finances. La loi de finances est extrêmement importante. Donc c'est une légèreté que nous ne comprenons pas, que nous dénonçons. Et bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, Euh, le groupe Benno Bokk Yaakaar et le président de l'Assemblée endosse cette lourde responsabilité, on veut créer une crise artificielle en réalité. On veut montrer, on veut créer une crise entre les institutions soi-disant. Mais c'est tout ça, c'est la crise du règlement intérieur de l'Assemblée qui nous poursuit. Les parlementaires ont été informés tardivement de ce, de cette convocation. Avant midi, ça a été réglé entre eux. sans débat, on n'a pas pu, les pouvoirs du bureau. Et voilà qu'on se retrouve dans cette situation regrettable, dans cette situation qui ne fait pas honneur à la représentation nationale. Il faut savoir que la loi de finances, c'est l'essentiel, sinon en tout cas un élément fondamental, un pilier fondamental du travail parlementaire. Et vous faites partie certainement de ceux qui pensent que, même ceux qui rejoignent euh, le Premier ministre euh, sur sa position, notamment relative à sa déclaration de, euh, de, de, politique générale. Oui, non, mais le Premier ministre a été très clair pourtant. Il ne veut pas violer la loi. étant donné que le règlement intérieur en vigueur ne lui permet pas, ne l'autorise pas à venir s'exprimer devant l'hémicycle, faute de base juridique, il a surtout invité l'Assemblée nationale et le groupe Bernon Bakoyakar, qui détient la majorité, de remettre à l'ordre ce règlement intérieur au lieu de distribuer un règlement intérieur falsifié qui engage par ailleurs la responsabilité pénale des auteurs. Donc, ce n'est pas la peine de créer une crise euh, institutionnelle, C'est encore une fois le résultat du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée, qui n'est pas, qui n'est pas à jour, qui s'éloigne allègrement de la légalité. Et nous pensons qu'aujourd'hui, euh, en faire payer le prix de ces quelques oukases qui se sont tenus en dehors de l'hémicycle, en reportant quand même le débat d'orientation budgétaire, je pense que c'est une légèreté, une faute, lourde de, de, de, de, du groupe Bernard Bokyakar aujourd'hui. un camouflet court. Non, on n'a jamais on ne peut pas on ne peut pas violer la loi en réponse comme une mesure de rétorsion ou de représailles. C'est du jamais vu. Parce que le Premier ministre aurait pris euh, euh, tenu des propos discourtois sur un post Facebook, l'Assemblée nationale se permet, s'autorise à violer la loi organique sur la loi de finances. C'est extrêmement dangereux, c'est pas un camouflet. Ça, c'est une violation manifeste d'un texte constitutionnel et l'Assemblée nationale et le président apporte la responsabilité. très rapidement ci wolof euh, nga doon euh, député bu yees bu ñu installé nga remplacé kii di Birame Souleye Diop alors euh, yëg-yëg bi lan la gannaaw tey bi ñu la installé. di sant yàlla di sant yàlla julli ci yoon sallallahu la wasallam di remercier la peuple sénégalais bi nga xam ni moom moo ñu indi fii di remercier le ministre Birame lay Diop bi nga xam ni moom moo ñu moom lañ fi suppléer. di remercier les députés de PASTEF et du groupe Benno Bokk Yaakaar et tous les collègues députés ci accueil bu am solo bi nga xam ni réservé nañu ko ak ñaan yi nga xam ni ñaanal nañ ñu ko. di remercier aussi suñu département muy Thiès ci taxawaay bi ñu am ba ñu yegg si fii ndax bu ñu fi yeggsee c'est parce que tout un département dañoo mobiliser woon pour ñu yegg si fii. mu tombeek également comme ni ma ko waxee léegi rek ci euh, euh, tubaab nga fekk fi situation bu doy waar euh, débat d'orientation budgétaire bi ñu daal di annulé jàpp ni rek premier ministre bi maanaam respecté wul assemblée nationale bi à travers ce post Facebook qu'il a fait hier. waaw loolu nekk lu doy waar ak loo xam ni quand même day indi njàqare ak jaaxle su dee assemblée nationale loo xamante ni ab loi moo ko tënk ni ko tey ci bis bi avant ngeen a tëj session bi. na ngeen tenir le débat d'orientation budgétaire mu nekk looy xam ni moom la ministre des finance waroon ñëw ak ministre du budget ñu expliquer alal ji nga xam ni collecté nañ ko ci impôt ak alal ji nga xam ni lebe nañ ko au nom du peuple sénégalais fan lañ ko fas yéenee dugal débat d'orientation budgétaire pour député yi la du pour moo tax gisoo fi premier ministre ministre bi yore kopparu réew mi la ñu woo ni ko waxal ak député yi fan ngeen ñu bëgg a yóbbu ci loi de finance moo gën ngeen bett ñoog loi de finance boo xam ne duñ ci xam dara duñ ko mën donc tey li ñu def ñoom prétexte la pour jéem a créer ab ab crise ci réew mi parce que xam nañ ni crise amu fi li ñu leen wax mooy seen réglement intérieur bi baaxul premier ministre Ousmane ko woo leen ni leen nañ changé leen ko moo gën doon tontu député Guy Marius Sagna ci page Facebook am ñu ne wax jooju mu leen wax dalee na metti ba moom dañuy préférer violer li ñuy wax loi organique bi préparer loi de finance mu nekk lu doy mhm. mu nekk lu doy ci institution ndax fayantoo mhm. dafa wax dafa bind tontu Guy Marius Sagna ñoom nañu bind tontu ko loolu moo gënoon a yomb. alors premier ministre bi euh, kàddu yi mu yëkkati démb defe naa euh, kàddu yoo mën a dégg la yow. li mu leen wax dafa leer. Mhm. man mu bañu maa ñëw assemblée mais damay bañ ginnaaw texte yi may permettre ma dugg yéen a ko dindi woon. yéen ñii yéen a ko dindi woon ak seen majorité man tey su ma fa duggee damay jéggi yoon loolu laay bañ moo tax ma leen di woo pour ngeen defaraat ko am ngeen temps bi am ngeen moyens yi ndax yéen a occupé assemblée mais tant que rek leew leen ko ba ma mën a ñëw du ma fa mën a dugg ndax damay bañ a créer ëllëg loo xam ni kii jiitu réew mi danaan lii de amul mais mën nañ ko violer parce que defoon nañ ko fi benn jamono loolu képp lañ leen wax ñoom ñu ne wax jooju metti na leen ba tey dañuy violer loo xam ni lu am solo la mooy kopparu réew mi fan lañ koy dépensé ak nan lañ koy dépensé nga ni réunion boobu du am te texte bi waxoon la tey jii la waroon a nekk avant ñoo tëj session bi pour que ngeen yóbbaale document bi boon ci waxtaanee pour bu ñuy élaborer loi de finance. jàppoon euh, situation bi dina mën a yóbbu assemblée ci crise wala. non crise bi nee naa c'est artificielle. Hmm. crise u règlement intérieur la boo xam ne ñoom ñoo ko violé depuis le début mais mënul nekk crise ndax dëkk bi yëpp a ngi dox li mënta empêcher de fonctionner mais ñoom par contre am nañ une lourde responsabilité devant ndax violer loi pour tontu ab premier ministre bu bu bu bu bu waxul ak yéen loolu mu ngi soog a am c'est une première dans l'histoire et c'est malheureux. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. bien léegi nag euh, le reste mooy liggéey euh, ñun askan bi lu ñuy xaar mooy ñu ñu liggéeyal leen donc euh, l'objectif c'est de euh, Sénégal mu am ay ay députés représentant représentants du peuple yu digne te si loolu la ñuy taxaw incha allah de toute façon. Euh, na Sénégalais xaar en tout cas de notre part de la part de la coalition euh, Yewwi Askan Wi euh, ni ñoom ñun lañ ñun ñoom lañ fi nekk en donc loolu moo gën a nekk gën a nekk essentiel bi que de travailler pour le peuple sénégalais ndax liggéey bi yëpp ñoom ñoo tax ñu koy def si buñ jëlee suñu temps jël suñu bàyyi yenn yenn affaires yi ñëw fi c'est parce que dañoo dañoo dañoo bëgg que